bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi barakaatu mbokk yi guddik tey gi mooy guddik fukkeel ak juróom benn ci koor gi naafileg tey gi ñaari rakkaa la rakkaa bu ne fatiha yoon isa zulzilati ko ñaari rakkaa la bu ne fatiha benn yoon isa fukki yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.